jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nañu waajal gan gu màgg gi gan gu sell gi gan gi nga xam ni foo ko tudd sa xel dem ci tàndarma gan gi nga xam ni foo ko tudd sa xel dem ci basaab gan gi nga xam ni foo ko tudd sa xel dem ci naana gan gi nga xam ni foo ko tudd sa xel dem ci baay faal yeeg seeni ndogu gan gi nga xam ni foo koy wax mairie dañ lay mere gan gi nga xam ni foo koy wax jànq ji duñ la sawar a xool gan gi nga xam ni foo koy wax grand yi duñu sawar ci sab daba gan gi nga xam ni foo ko tudd jaaykatu may gay dañu lay mere gan gu màgg gi ñëw na gan googee moo di kan koor gi ñëwati na gars yi daan lekk mburu ak daan lekkee fonde ñooñu ñëpp xëy nañu ko ci suuf jaaykatu doxle jaaykatu caagir yi yi ci ñi daan jaay ay mat daan wër bi daan comédien ñooñu ñëpp xëy nañu tëdd ci seen ko di jee mel ni ko ak mar wu metti laas moom mel ni ko ne naan ak bisaab léegi moom ku ko jaay mu jar waaye kenn du kurus ki nga xam ne moo di si daadaku xasida ni maanaam dana yomb loole ñi jàngatu xasida yi dañ bëgg ci koor gi kontaan nañ ci ni maanaam bu ñëwee dañ ci yëg seen bopp bu baax jàngatu xasida yi si di jëlle ci daan fant léegi tey ñu xëy ko teg ci suuf jigéen ñi daan paseeru léegi daan gis tuutuñ ko gis teew sa xiir kenn duutu ko dégg fenn am pecc kenn duutu ko dégg fenn yéen kaay bi ne maanaam koor gi ñëwati naak doole tàngooru métti wi ñëwati na fi nga xam ne moo di ci Tuuba jaaykatu gerte yeeg caafi ngoon yi duutuñu dox ñu ñu ñëpp xëy samp say nitam mu sul quotidien mel ni ko ne naan Touba bu koor ñëwee day mel ni dëkk bi day changé bu koor ñëwee day mel ni dëkk bi day soppeeku ni maanaam koy seeti ba boo nga ku guddi waaye koo seeti ba tëggi dalay mere ngir xiif ak mar wu tar laas moom mel ni naan koor gi ñëw naa ki xéewalam ana bokk nu ñu koy waajalee